yaakaar ni dama doon wax ni euh, dama xamul ban mbubu lay sol mbubu maire la wala mbubu ministre waaye bàyyil ma jëkkee sol ministre bi parce que AGEROUTE mi nga xam ni moom moo defaraat pont bi ñuy wax pont Moustapha Malick tey dafa livrer travaux yi ma taxaw fii en tant que ministre ànd ak monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis donc ba Badara Samb ma koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam. ci pas-pasam ci léppam AGEROUTE dafa nekk kuréel boo xam ne dafa bokk ci ministère des infrastructures donc man en tant que ministre de tutelle war naa mën a ñëw joxe travaux yi waaye travaux yi ma joxe dama ko jox sama bopp man en tant que maire de la commune de Saint-Louis donc ma euh, vraiment accueillir que euh, ci contenté contentement bu am solo parce que liggéey bi dafa nekk liggéey bu am solo pont bi yaakaar na ne am na ñeent fukki at ci sama suma sama juumul ak élément yi ma jox ñan fukki at ñu defaraat ko ba mu yànjaat mel na bees tàq état bi jël un milliard dugal ci jëg kon defar aussi le pont le pont Faidherbe def ci lu toll nu six cent cinquante million de francs CFA donc mu bokk ci programme boo xam ni président Macky Sall moo ko tëral muy le programme des ponts et autoponts xam nga Sénégal ba Sénégal daj dafa bëri ay pont ak autopont Dakar am na boo demee fële. Euh, ci maatam Fouta am na fa boo demee fële maanaam au niveau du département de Bignona am na fa boo demee même au niveau de la région de Tambacounda am na fa euh, toute la région de Dakar aussi daf bëri programme de ponts et autoponts donc ndar bokk ndar bokk yu ci yu am euh, ci wàllum defaraat le pont Moustapha Malick ak defaraat le pont Faidherbe mu nekk loo xam ne dafa baax ci askanu ndar parce que fukki weer a ngi nii ak ñaar yoo xam ni dañu tojoon pont bi di ko defar mu nekkoon loo xam dafa indoon jafe-jafe ci dem bëgg dëkk bi fii ci biir Ndar waaye tey tey loolu yëpp fàtte la te gëm naa ni population bi nii ñu ubbee pont bi maanaam dañ ca kontaan bu baax a baax liggéey pont bi sax weesoo liggéey pont bi en réalité parce que mbedd yi dañ ko defaraat toute la voirie non seulement ci wetu pont bi boo yéeg pont bi dañuy defaraat pont euh, voirie bi bu ñuy wàcc pont bi aussi dañ defaraat voirie bi boole ceeg yeneen voirie yi nga xam ne mbedd yi defar ci biir Ndar bokk ci programme bi am solo. loolu moo tax ndar tey mën naa wax ne xar xaru kanamu ndar dafa changé lu ko changé mooy président Macky Sall da ko changé parce que fukki at ak ñaar yi nga xam ne suñu borom dénk nekk réew mi dafa jël lu bëri def ko ci biir ndar ci wàllum koom-koom ci wàllum infrastructure wala ci wàllum defar donc loolu ñun doomu ndar yi à travers ci baatu maire bi nga xam ne yéen a ko denk dëkk bi da ngay gërëm bu président Macky Sall parce que le programme de développement aussi. programme la boo xam ni ba mu ñëwee ci bopp réew liggéey bi tàmbali moo tax lu bëri am na ci ci liggéey boo demee avenue Jean Mermoz defaraat nañ ko boo demee la route de Rebeuss defaraat nañ ko fii la place Baye de Ndar dañ ko defar c'est vrai que defar bi des na parce que entreprise ba yoroon defar bi dafa amoon ay jafe ba nga xam ni dañ ko reprendraat lu dul yàgg parce que ba ba ñuy egg ñun ci bopp mairie bi dañoon place Baye bi ba demee ba fële hôtel de la Poste. foofu yëpp dañ ko doon voie piétonne maanaam oto du waru woon jaar foofu waru woon jaar sax ci kanam gouvernance man maa ni nañu dindi loolu nañu fexe rek ba maanaam place bi mu nekk place piétonne uniquement mais mbeddum bu jaat buñ kër gouvernance nañ ko ubbi pour que dem bëgg def gën a yombul place bi nag defar bi des na am na entreprise yu ñu jël pour ñu defaraat ko yokkaat ci maanaam lu du verre maanaam yokkaat ci ay garab defaraat place bi ba mu gën ba mu gën a yànji donc loolu xam naa lu sama mbokk ndar-ndar yi di doomu ndar yi di xaar la mais euh, mën naa leen assurer que ni travaux yi dañu danañu commencer nu mu gënee gaaw comme saa mu gën a mu gën a yànji gën a gën a baax donc loolu yëpp bu ñu ko amee ak ndar nu mu nekkee dëkk boo xam ne moo gën a set ci dëkk yi ak dëkk boo xam ne moo gën a leer ci dëkk yi mën nañoo xam ne lii contentement bu rëy la ak aussi avenue président Macky Sall ba nga xam ni. léegi file quelques fan rek travaux yi daañu commencé daañ ci defar ay garab yu bees taax daañu defaraat tëli yi daañ ci def maanaam aménagement urbain vraiment loolu yëpp bu paree da ngeen gis Ndar Dakar du ko ëppale dara parce que mën naa wax dara ci Ndar fii yàlla daf ñu baaxee gaz feeñ fii ci géej gi te mu war nekk dëkk boo xam ne bu ëllëgee dana bëri ay gan yu bari yi fi ñëw ñii di fi ñëw di fi liggéey ñii di fi ñëw di fi daan seen doole wala di fi laf leneen te loolu dëkk bu war a maanaam accueillir loolu ci mbooloo dafa war a nekk dëkk boo xam ni maanaam dafay taxaw te loolu dafa nekk lu am solo daañu defar ay hôtel yu bees fële au niveau de la Langue de Barry hôtel hôtel yu bees yoo xam ni daañu jël plus de mille personnes ou même mille cent à deux mille personnes loolu yëpp nag bu ko président Macky Sall day def c'est pour que Ndar gën a mën a taxaw te ñun suñu bëgg-bëgg mooy que Ndar nekk la première ville du Sénégal gi dëkk bu gën a rafet ci Sénégal te boobu gëm naa ni yoon yooyu la ñu nekk. te population bi daañ ci jàppale bu baax a baax. donc loolu moo solo parce que comme comme Ndar pêche la pêche point bi bañ ko tëjee fukki weer fukki weer ak ñaar indoon na gàllankoor mais tey dañu ubbiwaat parce que pont bi ubbi na waaye am na beneen pont boo xam ne dana ñëw muy ñu wax le deuxième pont de Saint-Louis.